sur les appels à loolu wax naa ci appel candidature. Ah. mais loolu c'est un principe boo xam ne bii dañu ko war a adopter pour certains postes tu peux pas généraliser l'appel à candidature c'est pas possible il y a des postes sensibles yu am impact sur les ménages ci dundinu nit ñi ak ci entreprise yi appel à candidature man dama bind livre pour bañ mu am polémique ci débat bi man ci sama livre dama bind trent 36 postes. c'est des postes de l'administration centrale ak yeneen postes yoo xam ne ay compétence transversales la surtout les postes de régulation télécom ay ay euh, yooyu audiovisuel ak yooyu dama ko bind bind postes yi nga xam ne yi dafa war am appel ak candidature. donc mais tout a été pourvu. oui attends attends attends je parle hmm. la démarche pour le faire il faut mettre des cahiers des charges cetera préparer ko te tu ne vas pas yeewu suba nga ne 36 postes yëpp laa koy def tout de suite. da ngay def par étape tu commences par un pilote di ko def dànk ndànk ñi nga xam ne dañoo war a remplacer immédiatement mun nga leen defar ay intérimaire nga changer leen en attendant mais ñoom ñoo war a décider de l'opportunité de faire l'appel à candidature sur tel poste ou tel poste ça ça peut un débat il a des gens qui disent non ils avaient dit tout certains postes ils l'ont pas fait et parce qu'ils ne sont pas prêts ils ont dit ñoom ils loolu c'est une question de démarche mais l'idée n'est pas abandonné. Vous n'êtes pas déçu que non, que pour man pour man il n'était pas suffisamment préparé sur cette question-là. Et le risque c'était de laisser les gens ñu continuer di gérer dëkk bi alors que y avait surtout des malversations qu'ils avaient vues et c'est des gens dont ils n'ont pas confiance. Ah, ñoo xam ne sama tubaab bi donc loolu je peux parfaitement comprendre que genn wàllu kasara moo gën kasara. au lieu ngay bàyyi gars yi ñu continuer gérer et tout que tu les remplaces et tu mets en procédure et progressivement tu mais li nga xam ne nag ma ma ma li nga xam ne conseil d' administration la ay sociétés yoo xam ne dafa ay conseil d' administration nga confier mission bi conseil d' administration ñu def les sélections mën nañ sax décider ne kii duñ ko remplacer mën nañu nommer koo xam ne kii sax dafa bokkoon ci ancien régime bi nga gis ne liggéey muy def baax na qu'il n'y a aucun problème ñu bi ne la bàyyi ko fi ñu bàyyi ko fi loolu mun na donc loolu euh, c'est très bien que débat bi am parce que li nga waxoon dañu la dañ lay interpeller loolu baax na c'est très bien que nit ñi ne ah il faut ñu def appel il y a beaucoup de jeunes qui attendent qui sont des Sénégalais qui sont à l'extérieur qui sont ici qui ont leur diplôme qui n'ont aucune connexion politique ou bien qui sont dans les partis politiques qui attendent les appels à candidature pour avoir des postes légitimement gagnés donc appel à candidature il faut le faire mais il loolu ku ci bëgg a sukkandiku waaye ñoom fan la ñu nekkoon ñi lay critiquer ci appel à candidature ça fait combien d'années que ñuy nommer ay nit. mais ñoom mosuñu ko promettre. waaye ñoom li ñuy def moo gën a garaaw dañu naan soo sa poste ñu ñu daax la. ñooñu politiser administration amuñu lu ñuy wax ñoom li ñuy def moom dañu war a noppi bu ñuy wax affaire appel à candidature dañu war a noppi. parce que pendant 12 ans déglu ma rek nga yore réew di di jënd ay nit parce que gañewuñu ay localité nga politiser lépp post yëpp nga politiser ko. ba réew mi toll fi mu toll nit ñoo ne dafay def appel candidature pareegul nga ñëw bu ko takkal pot waxal beneen